dal leen ak jàmm ci seen ñaareelu journal Ziar Sarsara édition 2023 mbokk yi bopp journal li ci gën a fës euh, délégation yu bawoo Nouakchott euh, agsi nañu fii nga xam ne moom mooy Sarsara bi juróom-ñeenti waxtu jotee ci guddi euh, ki nga xam ne moom moo jiite délégation bi ànd ak nag ahlu café Serigne Modou Kara dina ci yëkkati ay kàddu gannaaw bu ñu yegsee ci bërëb bu sell bii lee ñi nga xam ne ñoom ñooy commission accueil ak hébergement fàggu nañ lépp loo xam ne nii pour taalibe yi nekk si dalwaay yu baax ak bernde yi ñoom ñëpp nag matal nañ ko ba di ci ànd ak nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoolee kuréel googulee waa ahlu café nag fu ñu dem wan fa seen xarañte seen liggéey waaye tamit leen fi indaale ci café ak nañu fas yéene soobu ci liggéey bi diñ ci teewlu ki nga xam ne moom mooy daam café ci micro ki nga xam ne moom mooy suñu reporter ba tey nag ñi nga xam ne ñoom ñooy waa daayira Walaqad Karramnaa euh, Sarsara te nekk fii ci Nouakchott di daayira bi nga xam ne nii ñu ngi jokk ci ahlu ñoom tamit euh, li nga xam ne moom la ñu waajalee bés bi euh, ci ziar Sarsara ren bi lépp nag ngir ba baam taalibe yi ak jóge ñi nga xam ne ñoom ñoo jóge Touba nekk si jàmm salaam moom mooy seen yitte lieu de culte yi maanaam bërëb ziar yu bëri yoo xam ne ñu ngi ci bërëb bi euh, ànd nañ ci ak sunu kilifa yi nga xam ne ñoom ñu àndal ci Abdoulaye Dieye tamit moom moo yore seen kàddu yëkkati na fa gën noo xamale ak li nga xam ne moom mooy bërëb yi mbokk yi tamit li nga xam ne moom mooy cérémonie bi officielle bi nga xam ne moom mooy am fii ci Sarsara Serigne euh, Chérif Mbacké euh, moom Cheikh Mouhamadou Fadal moom moo ko teewee nag mooy ki nga xam ne nag moom la fii Serigne Abo Baraka yabal ñu fas yéene ci ànd ak moom ci ay kàddu yoo xam ne nii yëkkati na ko fii waaye tamit nanu fas yéene ànd ak yéen ci li nga xam moom mooy cérémonie de clôture ba fële ca euh, li nga xam mooy palais des congrès mbokk yi nestu ñu dikk ak ci faram-fàcce gi mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee woon rek daayira bi nga xam ne nii euh, fédér délégation yi nga xam ne ñoom ñoo jógee fële ca Nouakchott yegg si nañu biig nag ci euh, li nga xam ne moom mooy euh, vingt une ci juróom-ñeenti waxtu ci ngoon sëriñ Modou Kara Mbacké moom sëriñ Modou Faty Khary moom la déglu ci ndigalu soxna maam Issa gannaaw bu ñu yeggsee ci bërëb bile. macha allah sant yàlla rek jafe na jafewut ndax ku jëm si fi mel ni fii di siyaar si bu sëñ mag moom loo fa jànkonte rek jar loola jar na ko ñoo ngi sant yàlla bu baax nag ndax niñ ko daan ànd soxna si wéetal nañu wéetal nañu ndax ah, jàng nañu yoon ba miin nañ ko daal tàmm nañ ko ñoo ngi koy ñaanal daal fii ju taxaw ak bërëb bi ñu bokk ko moom ci barke Sëñ Tuubaa ndax moo moo ñu tàmmal yoon wi di ñaanal Sénégal it lañ fay dégg lépp yàlla bi si ndox mu sedd ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar kon yàlla réew mi am jàmm ñu am jàmm lu ñu fii daal yàlla nañ ko bokk ci barke Sëñ Tuubaa jërëjëf incha allah ma am ndog yi ñuy def fii ci guddi gi ak bu subaa kaay mi nañ fiy jàng ak siyaar yëpp dañ ci ñaanal Sénégal yàlla si jàmm jërëjëf waa commission accueil ak hébergement nag ñoom xam ngeen ne lépp lu jëm ci wàllu bernde ak daluwaay yi ñoom ñoo ko yore nag bërëb bii nga xam ne ne moom la ñu nekkee euh, laataa ñuy euh, délégation yi ñëw ñoom am nañ fi lu mot euh, ñaari fan ngir defar xayma yi waaye tamit ngir lijjanti ay jumtuwaay yoo xam ne nii maanaam ci mën a togg seen i bernde waaye tamit ndox meeg yooyu yëpp yemb na dañ ciy déglu ki nga xam ne moom mooy jëwriñu daayira bi mu yëkkati gannaaw bi nga xam ne délégation yegg si nan ñoom nañu fas yéene ànd ak ñoom ci bërëb particulier ñu teglu ko ci micro Cheikh Samb. waaw fii moom mooy day waari mooy bu Touba première fii moom incha allah dara du fi manqué ñoo ngi préparé reer yi nii bu ñu xëyee bu reer teg ndékki yi bu ñu teg añ yi bu ñu añee bi ñaan ñu delluwaat ba déwén fekkuwaat ko ñun ñëpp ci jàmm salaam ngeen yàgg fee ñëw ñun ñëpp yàgg fee ñëw ci barke Seydina Muhammad sallallahu taala rabbi ñoo ngi sant ñëpp nag waa daara mooy bu naafi bu Touba première moo nekk nii Euh, instant yi xanaa kontaan rek si màggal bi ak sant yàlla suñu borom màggal bi ñuy màggal yal ñu koy defaat ay déwén yu bëri ñu fekkee ñu nag mboolum julli waaw waajal xanaa reer yi ak añ yi suba incha allah xewal yi daal xewal yi waaw waaw incha allah ñëpp jot ñëpp ñëpp xewal incha waaw incha waa ahlu café xam ngeen ne ñoom nag ndaje yëpp yi am ci réew mi muy ndaje mu rit wala tamit ak ku leen sollicité rek ñoom euh, dañuy fas yéene yëkkati li nga xam ne moom la ñu am ci wàllu café waaye tamit di ko séddale mboolem taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo daje ci euh, bërëb bi loolu nag mi ngi tàmbalee ci liggéey bi nga xam ne soxna Maam Isa ak ay euh, goneem ñoom nag ñi nga xam ne ñoom ñooy laxasaayu ñoom yëkkati nañ ci seen i kàddu fas yéene nag soobu ci liggéey bi ba tey nag waa daayira wala xad xaram naa Sarsara ñuy daayira bi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci Nouakchott ñoom nag tamit euh, kenn demul ñu des nee nañ euh, gën nanoo fës euh, laxasaayu ngir ànd ak taalibe yi ci bés bi léegi nga xam ne moom mooy bu Sarsara bi ñu déglu leen ci micro ki nga xam ne moom mooy Mortala Kane. waaw ah, ñëw nañ fi ñëwate fi nag waaw waaw parce que ñu ngi bokk wala xadd karam naa Sarsara axlu kafe daal bu maa isa waaw ñu ngi di ziar ba. Mhm. waaw am nañu mbégte teewaat fi gannaaw jëmmi yàlla bi mu dogalee ñu teew fi. ñu ngi sant bu baax tamit ci teewaay bi ñu fi teew di am ngërëmat tamit bi ñu fi dajeeg yéen waaw ñu ngi ciy sant saa su nekk am mbégte bu baax a baax baax ci lii daal waaw waaw incha di ko waajal comme d'habitude rek fu ñu mënti nekk moom ñun ay ndongoy Serigne Touba la ñu rek fu ñu mënti nekk fu xew-xew nee rek dañ fa fexe teew ci kàttanu suñu borom incha allahu taala. ni ma moom mooy fi ñu njëkkoon a tàmbalee nag jumaa ji di bërëb bi nga xam ne fii la Cheikh Ahmad Bamba doon jullee moom bërëb boobu ne rek ak yeneen bërëb yoo xam ne nii eh, am na fi ñi nga xam ne donc ñoom ñoo ci eh, ñëw tey nag di ko ziar si ñoom nag eh, yëkkati nañ seen kàddu mbégte. fas yéene ko nag ànd ak mbokki taalibe yi ñu teewlu rek kàddu yi nga xam ne am na ci bërëb ziar yooyu la. li ko indi Sarsara. du dara lu may yàlla ndax Cheikh Sidiya baaba lañ ko recommandé boole ko ak moom lu gudd a gudd la waaye dama koy tënk rek pour ñu xam pësteef Cheikh Sidiya Baba di wër àll bi ndax ak juram waaye sëñ Tuubaa nangu naa ànd ak moom ngir digalal yàlla sëñ Tuubaa di ànd ak moom ñuy wër àll bi di wër àll bi ba benn bi sëñ Tuubaa am ngàntal wër àll bi mu yónnee Cheikh Sidiya aw bayit ngir wër gi mu doon wër àll bi moom du ko bëgg a dakkal bayit wam ko yónnee ab araaba ko way waaye da koo soppi ca mujj ga walaw nu tal xiyaara la maftarax naa walakin laa xiyaara maal ashishi sëñ Tuubaa dana Seex Siré Baba su ma doon tànn ku ma àndal damay wéy di ànd ak yow waaye nag yow am ñax ngay wër ak ndox mu jur gi naan te man yàlla lay wër kii wër am ñax nag moo xam ne ak juróom dañ koy lekk ak kii wër yàlla ak yonent bi bokkuñu bokkuñu li ñuy dox loo seex si nag xam ne kon pexe amut mu ba ko ca àll ba dem wëri ñax ak ndox sëñ tubaa toog fa ba mu yàgg mu jógee ca àll ba ñëw butulimi tuli mi nag nañu xam ne mooy dëkku seex si bu mag seex si dii ñaari dëkk la am benn bi bu tuli mi la tudd bu tuli mi dëkku famille beneen bi may mun la tudd may mun dëkkam bu ndaw la mën nañ ko misaali comme Touba ak Daaru Salaam doomam ju tudd Ahmed la sëñ Tuubaa jox ba daakal ne ko wol ma sa baay mu wooyi Cheikh Sidiya Cheikh Sidiya jóge ci àll bi ñëw bu tuli mi sëñ Tuubaa ne ko damaa bëgg nga takkal ma gileem ndax damaa am digalal yàlla ndax weeru koor wii di ñëw maa ngi koy woore ji barab bu ñuy wax Sarsara. Moulay di doom di jarbaat ci Haj Misri moom nag moom moo ñu xamaleek bërëb bi waaye li nga xam ne moom moo fi amoon ci taarix. Euh, maanaam kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii di ay shorofa ñoom ñi nga xam ne noonu la ñu fonkee bés bi ñu teewlu ko rek ci kàddu yi nga xam ne moom yëkk dénk na ko sunu naataango bi di xam moom mooy Cheikh Samb. du saalihin bi tekki ne lu bëri parce que fii am na turuq suuf fanke yëpp nekk nañu fi fii am na qaadiriya fii am na chadiliya fii am na tijaaniya am na muridisme loolu déjà benn béréb ci Mauritanie. Euh, amul lii lépp te it euh, borom zahir la ñu woon mantaka bii ba léegi sax bari nañu ay ulama yoo xam ne ay kàng foore lañu ñu waaw mën naa ci wax fii ki ñu gën a jege fii même pas 18 kilomètres Serigne Ba ba ñeneen ñoom moo yeesal diine gi léegi am nga yeneen it aalim yoo xam ne dañuy firi alxuraan di wax ci yeneen xam-xam maasu xaaj misri mi it donc ba tey fii le berceau de de de de la religion en Mauritanie ci wàllu xam-xam ak ci wàllu nitu yàlla les saints fii euh, zone bii daal moom moo tax Cheikh Ahmadou Bamba ni fii ardu salihin maanaam c'est c'est la terre des saints loolu feeñ ba léegi mi ngi feeñ alhamdulilah gis nañu barke boobu it foofu. loolu waral euh, ñenn ci sax kilifa seen doom ñu waaw ren sax am na kër Touba bu ñu sanc bu taalibe yi sanc fii ci nu baax ya yoo xam ni euh, sëñ Mourtala Bousso sëñ Mourtala Bousso ñëwoon na fi keroog ça fait même pas une semaine pour inaugurer ko loolu it lu bees la fii fii it ci bërëb bi euh, sëriñ Sidi nee na ma bëgg na fi sant euh, ay mahadra maanaam ay kër yu jàngal diine fii parce que xam-xam bokk na ci nga wéet ak moom te Cheikh Ahmadou ma du daan wax ci jamonom sax jamonoom boobee mu daan wax hada dahrul firaari minal buyuti ila sahaari jamono bii mooy jamono gàddaay jóge taax dem gànnaar wala dem euh, foo xam ni daal taax nekk ko foofu ngay mën a am xam-xam foofu la diine bi di gën a sell ndax dëkk yi léegi dañoo bari ay tentative maanaam télévision yi téléphone yi fii moom boo fi amee réseau du bëri euh, accidentellement rek nga koy am wala gaa amul donc fii fii fii la fii fii mooy fàkk moo fekk mbaax pour xam-xam ak wuti xam-xam ak jaamu yàlla amul benn benn empêchement boo xam ne bi mën na la moo tax sax mën nañu fi ressourcer wu waaw euh, mën nañu fi def it tourisme culturel yooyu yëpp mënees nañu fi am. comme ni ma leen ko waxee nag ci cérémonie officielle bi teewaayu Serigne euh, Chérif Mbacké ak Serigne Sidi Mbacké Mourtada ñoom nag euh, ñoom ñoo fi teewal Serigne Abo Baraka waaye tamit teewal fi xalif général kulmul Serigne Mountakha Bachir ñu teewlu rek ki nga xam ne moom moo fi noonu la ñu jeexalee cérémonie bi gannaaw bi ñuy amalee ndaje bi ci benn waxtu laataa ñuy dem julli ju jumaa fii ñu toog yàlla dogal ñu tuddee ko Serigne Falilou Mbacké Serigne fii la tarbiyoo mbokk Cheikh Amadou Moustapha nga xam ne da ngeen di daaw la tëgg ni tuddee bis bi kon ba am gërëmal Serigne bi ba dellu Jolof Serigne bi baaxee la ñoom yee leen nit si ànd ak moom mooy mooy ak taalibe rek ñoom ñëpp ñu nangu ko joxe seen bopp sa na ko sëriñ bi bëggee waaye mu toole si ay way mu wax ne jaay nag njureelam jënd koog taalibe lay nee na lu tax mu ne moom sërif am na yaakaar si jotaay bii ginnaaw ba mu joxe waatee lépp addiya ñaan na sëriñ bi nag mu defal mooy alxuraana xarxaraana xarxuraana xotti baax mooy xotti baax mën naa ump sax ka nga doon bokk yi loolu moom moo fi jotoon ruus ci xibaaru ziar Sarsara édition 2023 euh, ci li nga xam moom mooy journal bi ci kàddu gi Siri Diakhaté ci caméra bi Fallou Ndoye ci réalisation bi ki nga xam moom mooy Cheikh Samb ci montage bi ki nga xam mooy Cheikh Gueye ñu leen dig daje ci yeneen jotaayu journal ziar Sarsara édition 2023